procès bu dox diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba talaata bi ñu la vice boobe nag concerné wul sax kii di Ndeye Khady Ndiaye la concerné ñu topp ko affaire bi ngir complicité. président de la chambre criminelle moom moo constaté ne dossier bi ñëw na mais teguwul ci yoon parce que 246 du code de procédure pénale li mu wax mooy bu ñu inter nañ bàyyi lu mu ñett fan avant ñuy atte te démb la ñu entendre Ndeye Khady Ndiaye ñii di avocat Sonko yi nag di xamle ne seenub client donte sax booba léegi mënuñ ko jot dàqul benn yoon ñëw répondre ci convocation bi waaye nag faaw rekk ñu respecter ay àqam ak ay yelleefam. il est ay avocat am mënuñ ko jot te loolee neexuñu ndax buñ ko jotee tey dañ koy localiser te lool day tax gaa yi gën ko sonal. Sonko il est respecter samay droits. l'indication minimum. d'un procès équitable man maay njëkk tribunal. ña fare ci Adji Sarr di xamle ne doxalinu Ousmane Sonko bi du dara lu dul ñàkk mën a wone ca ci tuuma bi ñu teg ci kaw ndoddam. am nga Olof Ndiaye mu ne. mais maître maître Moussa nee na. am ni jëw a ak lu ci mënti am procès ba léegi jeexagul ab ayu ab ayu bés la leen bi may ngir ñu mën a dellu si waat ci ab audience spéciale ngir leeral li nga xam ne askanu Sénégal yépp ñu ngi koy xaar